président Macky ne ko doomu Daaru Muxti yëpp am nañu tey di la tertu tertu bi gën a yokk tertu bi fii amu fi tey tuuteer na lool amatul fi woon Diagne Fada amatul fi Djily Mbacké amatul fi Ibrahima Sall Daaru Muxti moo fi am di tertu président Macky Sall président Macky Sall xam na Thierno xam na Modou Diagne Fada xam na Ibrahima Sall xam na Djili Mbacké seen mën-mën ak seen doole du ca ay pancarte ak la yuuxu lañ koy wanee ku ci nekk xam na la kon ànd leen yéen ñëpp bu dikkee ngeen tàcc ko wane ne seen leader yi fi nekk nekk nañu benn te ka Darou Mouhty wane na dooleem te mi ngi laaj cër bi mu war a am ñu jox ko ko parce que bi ngeen di def ak ŋaayoo bi ngeen di def seen biir yéen doon lay yàqal du yàqal leader yi nga xam ne ñu nekk nañ ko ba pare. kon ñu wane leen ne dëkk bi jàmm fi am yéen benn ngeen te li ngeen bëgg mooy wane doole Daaru Muxti bëgg ñu jox ko cër bi mu war a am lu ci waay def lu loolu yaa ngi koy yàq. ay pancarte ak ay tàccu ak ay sifflet ñun jomb nañu gën Macky Sall suñu mën-mën ci ay pancarte ak ay sifflet ak ay tàccu. kon nag delloo leen seen xel ngeen nekk benn guddi ko xam ne dëkk bii ànd nañ nekk nañ benn ñu ngi toog di ko tàttu te taaru doole ji mu am xajul ci ko jox cërëm loolu daal amoon ñu ngi leen di wax ci turu Modou Diagne Fada turu Ibrahima Samb turu Djili Mbacke turu ñoom Cheikh Diop ak gouvernement yi fi nekk yëpp ñu jàppoo président Macky Sall